madame gardien du ma toog fii di bu bu bu bu doom xëyee ni mes ba ba bàyyi ni meles jabar moom ni may li ko waa koñ bi di bu ko déggoon hmm, hmm. kon daal ñépp ñépp ngi naan est-ce que est-ce que soxla lu caga wóoruma nag ñi ko koy wax ah, ku ñuy jiñ dëmm ngay soccoo lu liir boo jàkka ji noddee ba léegi cin mën a ko fee tàkk hmm, dëgg nekk nekk ci kër gi dee ko gën ak ah, fayda nii moom dund ci moom waaw alaaji moom fee daan na fa def ay soow voilà hmm. ah alaaji day ah nga xaw ma ne woon bërëb bii léegi nga fi li <laughs> mbaquus la fenal nag hmm. laa ilaaha illallah alaaji wàccal alaaji wàccal sàmm wàccal wax leen di bàyyi ba pare dama yëg wàccal de wàccal alaaji xam naa ko waaye ñëwal rek alaaji capté ma waaye ñëwal ñëwal capté ma ñëwal ñëwal laa ilaaha illallah apatalaw law balaw law kaan tuy rajax rajax ñëwat alaaji alaaji ñëwal alaaji mënoo maa capté noonu damay daanu ñëwal ñëwal ñëwal mënoo maa capté noonu sàmm wàcca mënu maa bàyyi li ko noonu de ñëwal ñëwal xaaral ma awee nii laa ilaha illa allah laa ilaha illa buñ ko defoon par kenn nag dina xam ni moo ñëwal rek ñëwal ñëwal mënoon nañ ko def kenn kenn ma xam laa ilaha illa allah alaaji bul ma jëlee noonu alaaji ñëwal bul ma jëlee noonu wàccu du ma la du ma la xëccali de alaaji alaaji alaaji sonn naa de mënoon nañ koo def kenn kenn mënuñu ma de alaaji xam naa ko déglu rek déglu rek alaaji boo bëgg wuy ma dafa dafa alaaji ah. santal yàlla ba ma ci yemee de laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah wax dafa dalaw ba dalaw dalaw teel teel teel nee naa teel li ngay wax yëpp wax naa ko alaaji waroo ma woon diwaat soow ñu may song soow la ñuy bañ ma la xaar ma rek yàlla baax ba ma ci yemee maam kumba gënal ci alaaji dellu sa place gënal ci alaaji dellu sa place gënal ci alaaji nee na potalaw potalaw alaaji hmm? potalaw law potalaw law laa ilaha illa allah alaaji li may wax yëpp wax naa ko laa ilaha illa allah sonn naa ko alaaji boo bëggee soow doo ma ko wax sonn naa de xam nga ne lii bu ma ci yemul woon sa dee xañ na ci. sonn naa lool. lii bu ma nañ dem ci biir nga nelaw.